فقد لاقوا كل مرارة حراء ليصل دين الله إلى كل بقعة وأروى هم وشهدوا بدرا وخيبر بعدا ويوم حنين والدماء تصبب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi nga xam ne ñu ngi siiwal fii ci Guédiawaye Infos ñu ngi dellu si beneen yoon seen yóbbulu koor waaye tey dañ koy jagleel li nga xam ne moo xew tey muy fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru tamxarit ci weeru li nga xam ne mooy weeru koor mu tombeek li nga xam ne moom mooy xaswatul badr muy xare bu màgg ci jullit ñi yàlla may ci jullit ñi ndam loo xam ne mosu ko may jullit ñi ñu koy fàttali tey nag gannaaw ba nga xamee ne yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam nekkoon ne biir màkk lu tolloo fukki at oote jëmee ci lislaam moom ak i saxaabam waaye diit bi nga xam ne nekk na ko màkk fukki at ak ñett di ko di oote jëmee ci lislaam saa bi ñu doon dugg ñu ngi doon jànkuwanteeg ay coono jile coono yoo xam ne ñu ko jile ci yéeféer yi ay fitna ay mbugal yoo xam ne ñu ngi leen ko doon teg ba loolu amee yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam daal di digal ay saxaabam ne gàddaay leen ngeen dem fi nga xam ne mooy abash abash mun a dem leen foofu am na buur boo xam ne du tooñ te kenn du tooñ ci moom ci la sahaaba am ñu gàddaay jëm foofu bokkoon na ci ñi gàddaayoon jëm foofu mooy ku ñu wax Usman ibnu Affan bokkoon na ci ak ku ñu wax Jaafar ak ku ñu wax Abdullah ibnu Suhayl ñu ñëpp demoon nañ gàddaay dem foofu gannaaw ba affaire bi gën a tar ci la yonente bi digalaat leen ñu gàddaay jëm fi nga xam ne mooy madinatu munawar bañ demee madinatu munawar mu des yonente yàlla muhammad moom ak abubakar siddiq ñoom ñoo desoon fi nga xam ne mooy makk yonent bi daal di gàddaay dem Madina waaye avant loolu dafa jaayanteeg waa Madina ba pare ndax bu ñëwee danañ ko dimbale danañ ko fat jàppale ko moom ak ay saxaabaam mu d'accord ci loolu daal di gàddaay dem bañ demee li xew-xew mooy saxaaba yi ansaar dalal leen dalal leen xaaj seen alal ak seeni soxna ak seeni am-am yépp ñu seddoo ko yonent bi daal di mbokkale ñi nga xam ne mooy muhajirin ak ansaar ba loolu xewee. yonente bi daal di ñu toog bés e, Màkka dañuy faral di def commerce dañu dem saam jël fa marchandise yóbbu Màkka pour jaay bés ci bés yi nag ci ci biir weeru koor Abu Sufyaan jóge saam yenu marchandise di dem Màkka di jaar booru Madina yonente bi yëg ba mu ko yëgee daal di wax julli ñu ne dem leen jóg leen ngeen dem dab li nga xam ne mooy commerce bi nga xam ne Abu Sufyaan jiite na ko jugee saam jëm màkk na ngeen xam ne bu ngeen ko jëlee seen alal ngeen jël parce que saxaaba yi ba ñuy gàddaay jugee màkk jëm madina mun a war bàyyi woon nañ seen alal fi nga xam ne mooy madina fi nga xam ne mooy màkk parce que mu mënuñ ko woon a yóbbu bañ ko fa bàyyi gars yi dañ cee teg seen loxo di ci commerce bu yonent bi yégee ne Abu Sufyan mi ngi yenu marchandise pour yóbbu Makka jaar Madina ci la yebal ay ci la yonent bi yebal ay nit dem leen ngeen jël ko seen alal kon commencement xeex bi li ko taxoon a jóg mooy dem nangu alal mais xeex taxu ko woon a jóg ba loolu amee Abu Sufyaan yëg ne kat yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wassalaam am na ñu jóg pour ñëw pour nangu li nga xam ne mooy seen commerce bi ci la yónni ku ñuy wax ab dam Damdam ibnu Amr al-Ghaffari yi daal di ko yónni na ko demal mag boo demee nga wax leen ne leen Muhammad ak saxaaba yi ñi ngi pare pour nangu seen commerce bi gaaw leen ngeen ñëw ba dam-dam demee wax leen xibaar bi ñoom ñëpp ñu pare pare pour génn pour ñëw fi nga xam ne mooy madinatu pour dimbale seen commerce amul kenn des mbooleem koo xam ne sang nga maakare jugoon nga ñoom Utba ñoom Abu Jahal ñoom euh, ki nga xam ne mooy euh, sangi màkk yi nga xam ne ñoo bokkoon ba bañu yonent yàlla moom ñu ñëpp jugoon nañ ba ñu ñëw Abu Sufyaan nag yàlla dimbale ko mu fexe ba li nga xam ne mooy seen marchandise bi daal di mucc yonte bi daal di jóg boog saxaaba bi génn pour dabi yi pour jël seen marchandise ba ñu demee ñu ne ba ñu génn ñu ngi tolloon ci euh, ñetti téeméeri nit ak fukk ak ñeent ci li Abu Isaaqa wax am na ñu ne ñetti téeméer ak fukk ak ñett la ba ñu dem ci yoon bi Euh, yonent yàlla Muhammad xibaar daal di ko nako na ko ah ñi nga xam ne mooy waa Quraysh nañ pare pour ñëw fi nga xam ne Medina euh, pour dimbale seen commerce bi ak pare pour tax Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam, kon kon noonu la demee loolu moo waral mbir mi léegi nag yonte ba dem ba mu yégee ne euh, waa Quraysh nañ pare pour song ko xare dafa dajale nit ñi def li nga diisoo ak ñoom diisoo ak saaba yi naka lañu war a tërale xarale xare bi muy muhajirin ak ansaar waaw ba nga xamee ne loolu xew na yonte bi daal di ba ba yonte bi yëgee na mushrikin yi génn nañ mooy yéeféeri màkk yi génn nañ pare pour song ko xare dafa dajale saxaaba yi diisoo ñoom ci loolu lu ngeen xam lu ngeen lu seen xalaat ci loolu mu ne am mu ne ba muy diisoo ñoom muhaajiroon daal di wax wax ju rafet ndeysaan am na ko ñuy wax miqdaad ibnu amrin miqdaad ibnu amrin moom lan la wax daf ne ko yaa rasulallah am di li ma amaraka allah fa nahnu maak demal ci la yàlla digal ñu ngi ànd ak yow waaye nag yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam daal di xoolaat jamaat ci saxaaba yi mu ne ashiru alayya ayuha nnaas jox leen ma conseil yeen nit ñi fi ñu wax saad ibnu muaz na ko wallahi la ka annaka turiduna ya rasulallah dafa mel ni yow ñun nga namm منكو أجل منكو أنك يلا نموت منكو لقد آمنا بك وصدقناك ندقمنا ندقلنا وشهدنا أن ما جئت به الحق وأعطيناك على على ذلك عودا يو سعدنا كو نيون دي نيون دي گم نانيو تا دگال نانيو لا تي سيد نانيو ليغا اندي دگ لا تا جوخ نانيو لا على الطاعه على السمع والطاعه def nañ ko ci dégg ak topp kon nag fam di li ma aratta fa maaka demal ci li nga bëgg ñu ngi ànd ak yow fa wallazi bi bil xaq mu ne maa ngi gën ci ki nga xam ne moo la yónni ci dëgg law istaarat binal baxra mu ne boo ñu gaaraloon géej gi nga xuus na xuus leen danañ xuus ànd ak yow ci la yonte bi daal di kontaan na ngay sànn mu xam ne kon saa bi pare nañ pour ànd ak moom ci li nga xam ne moom la yàlla bëgg mu daldi di ne siiroo wa abshiru dox leen te bég leen fa inna allaha qad waadanii ihda taifatayn yàlla dëxalal na ma danaa am ñaari kenn ci ñaari mbir yi benn ma am njëg mi rek wala ma gañe leen kon loolu yàlla may na ko bañ demee ba àgg Badr ñu daal di taxawal yonent bi avant loolu dafa yónni nit pour mu seetal ko ñi nga xam ne mooy mushrikina yi ñaata lañ toll seen nombre bi ñaata lañ waaye ñoom ba ñu génn ñoom mushrikina ñu ngi tolloon ci junne xerakat ànd ak seen armée bu am doole te yonent yàlla Muhammad ba muy génn moom mi ngi ànd ak 313 wala 314 personnes personne li nga xam ne ci warawaay moom lañ amoon mi ngi tollu ci 60 70 ay gëlëm ci lañ amoon gëlëm bu nekk saa bi ñoo koy awalante bu kii yéegee ba sonn wàcc jox sa morom noonu la demee woon ba ñu demee ba àgg Badar nag ñu daal di def foofu benn xayma yonente bu dugg fa ngir mën ko sécurité pour tiit ci moom ragal nit mën na ko jot gaañ ko su boobaa lislaam mën na fa em waaye yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa daal di wax ne ne leen dalal leen seen xel yàlla jox na ma ndigal te war na ma ne incha allah xare bi danañ ko gañe ci bis boobu nag ci la yonent yàlla muhammad commencé jël loxoom di ko teg ci suuf fu mu teg ne hada masrau fulanin hada masrau fulanin diw sangam fii lay daanu diw sangam fii lay sangam lay sa yëfër bu nekk fa muy fa yënte boo xam ne fa ngay fa ngay daanu fa nga daanu ñoom ñëpp ku ci nekk fa bi rek fa lañ la mu emut foofu mumit muhammad mu daal di def li nga ñaan talal ay loxoom di ñaan kon nga gis ne jullit gannaaw bu defee lim def ba pare war na ñaan man min indillah ndimbal su fekkee mun na am du jugee fenn lolu ci yàlla kon julit mboolem lépp am da fay dafay wo ñaan yàlla mo do yent bi dal talal loxom di ñaan yàlla lan la ñaan na allahumma hadi quraish allahumma hadi quraish xat aqbalat bi khuyalaiha wa fakhriha mune yow yàlla wa quraish ñi ngi ñëw ak seen gand gandul ak seen poukere tahaddak wa takzibu ala rasulik ñi ngi lay jëm ñu ngi lay jéem a weddi te ñu ngi ñu ngi lay jéem a defee te ñu ngi jéem a weddi sa yonent allahuma fa nasruka alladi waadtani kon yow yàlla maa ngi lay ñaan ndam li nga xam ne moom nga ma dëxal yàlla ma ko jox su ko defee yàlla daal di ko may ndam kon niñ ci mën a déggee mooy na xare bi ku xool ni mu toll da ngay xaw a jaaxle lool na nu mën a nekkee 313 personnes nu mën a xeex ak 1000 personnes yoo xam ne dañoo am ay moyens te ñu amuñ ko waye buñ ko tege ci katunu yàlla su boba duñu jaxal te lolu buñ demé ci ay bi nga xamne mo nek ci suratul an'am moy li yàlla waxon yonent yàlla muhammad ittaqul lil mu'minina alla yakfiyakum rabbukum an yumiddakum alla yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi thalathati alaf min al malaikati munzalin yàlla dafa wax yàlla muhammad nako ndax doyul waxal sahaba ndax doyul len yàlla tëbb len dolli len jol len ci ay dole malaaka yo xamne ñoy ñëw pour dimbale len ci xéer bi ينا بلا إن تصبروا وتتقوا وياتكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المصومين يالا من بغين موني رغال يالا يالا دانا لين دولل تي جوني ملاك يو خامن جرومي جوني ملاك يو خامن دا نين تاغات تي خيخ ملاك يو نكا لا نين تاغات تي خيخ يال ملاك يو بوتي نيك دا نلي واخ كاغا وارا راي اك نوكاي راي بو ديمي تي سورة الانفال دا نيو فك يالا دي نيت لو مل نونو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 man dinaa jël li nga xam ne mooy ragal ma def ko ci xoli yéeféer yi su boobaa nag bu ngeen di xeex ak ñoom lu ngeen di xeex ak ñoom mooy na ngeen dóor ci kaw dox yi na ngeen dagg dox yi te nanga dagg seen loxo yi kenn saa bi am nañu am nañu wax ne keroog xat xasatul badar da gis ku tiim nit sax war a dagg bopp bi rek gis bopp bi dagg wala nga gis li nga xam ne mooy loxo bi dagg kon nga xam ne ñu leen doon dimbale du ay nit mooy ay malaak ñu leen doon dimbale ci xeex bi ba xeex bi noonu la mujj demee ñi daal di gañe yéeféer yi jàpp ci ñoom juróom-ñaar fukk ñoom juróom ñi nga xam ne mooy ponkali yéeféer yëpp ci lañ dee Abu Jahl ci la dee Utba ci la dee Umayyatu ci la dee ñoom ñëpp ci lañ dee ñu jàpp leen ñii ñu rey leen yéen bi daal di leen dajale wax laaj xalaatam naka la ñuy def ñii wax na nañ leen rey ñii wax na nañ leen jàpp jar ñi ne na ah nañ joxe fi euh, fidiya mooy nañ jotu seen bopp ku nekk na nga joxe temps ci xaalis ñi bàyyi la wala ak yonte bi nag ku mën a jàngal xale na ko jàngal boo jàngalee fukki xale loolu moo nekk sa gore mu nekkoon xare boo xam ne ndimbal yàlla daf ci feeñ lool waaye nag ñaan yàlla feeñ na ci kon ñu ngi ñaan yàlla ci barkeb xare boobu yàlla yàlla dimbale jullit ñi fu ñu mën a nekk ci Palestine ci Suuriya ci Yemen ak fu ñu mën a nekk yàlla yàlla dimbale leen ci kaw noonu lislaam yi wa ma zalika ala llahi bi aziz wa